mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñi seetaan Tanime TV tey jii nag ñu ngi ci Daarul Muxti ci màggalug Daarul Muxti màggalug maam Cerno Ibrahima Faati waaye ñu ngi fii tàbbi ci kër kenn ci njabootam di seydinaa Aliou karamallahu wacca ñu gën koo xam ci ay dara Mbàkke di doomi borom daarul muxti waaye ñu fekk fi njabootam di xalifaam di sëriñ maam Thierno Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifaam doon koo xamante ni wax dëgg yàlla macha allah boo duggee ci kër gi da nga xam ne fii kërug diine la waaye di nga xam ne fii waaju baax a fi nekkoon waaye di nga xam ne tamit bàyyi na fi ku baax muy sëriñ maam Thierno mi ñu fekk ko fi di ko siyaare ak di ko ndokkeel ci bis bi di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te yàlla guddal aw fanam te yàlla àggale yéeneem ji muy liggéeyal sëriñ tubaa ñu toog ak nag sëriñ Mbacke Gueye mi nga xam ne kenn la ci njaboot gi di taalibe ñu bëggoon mu fàttali nu kër gi. kan mooy sëñ Aydara waaye kër gi nan la ñuy dundale bisub maam Cerno bi ci ndigalul xalifa général de Mouride waaye ci kilifteefu Serigne Bass Anta Niang waaye ci ndigalul ki nga xam ne nag ku dugg ci kër gi moom nga fi fekk si muy Serigne maam Cerno di ko baax di ko yaatu di ko xamante ku bëgg sëñ Touba nangu koo liggéeyal sëriñ bi ginnaaw la siyaare rek ci bis bi ñu fàttali nu ko aouzu billahi min asheytaan arrajim wa inni uhizuha bika wa zurriyataha min asheytaan arrajim wa auzu bika rabbi an yaxduruun bismillahi arrahmani arrahim waaw sëñ bi kon ginnaaw bi ñu déggee kàddu yu tedd yooyu nga yëkkati ñu fas yéene yëkkati ay kàddu yu néew di kàddu yu ndigal rek ndax xam-xam bi nekku fi at yi it ko waaye nag ndigal moom jëfe rek waaw kon daal bisimilah ñu ngi déglu ba xam loo bëgg a laaj bisimilah ñu xool ba xam waaw. ok jërëjëf sëñ Mbacke xanaa ñu fàttali nu rek kan mooy sëñ Aydara Mbacke waaye fàttali nu bis bi nan lañ koy dundale fii ci ndigalul maam mi nga xam ne mooy xalifa bi. sëñ Aydara Mbacke de moom doom la ci borom daarul Muxti te it eh, naa bokk na ci ñi nga xam ne ay mag lañ. Sëñ Aydara nag lañ xam ci moom mooy lañu gis ci doomi doomi doomi soxna yëpp rek ba jàng jotee jàng na li mu war a jàng lépp bokk yit fu baax ndax soxna Safiyeetu Jaxate mi ko meññi doom la ci Xaalima Jaxate Kala loolu rek doy na sëkk beneen côté bi moom daanaka bu ñu tuddee maam Thierno doy na Seydara nag li xam ci moom mooy teg tànkam ci diine yor ay tool di bay di yar ak ay taalibeem jaxasoo na it ak doomi sëriñ Tuubaa lool jaxasoo it ak ñeneen ñi nga xam ne sax bokkuñ ci yoon wi ndax ku mel ni Sëriñ Aliou Touré jaxasoo woon na ak moom lool donte ay doomu ndey ay mag magam la jaxasoo woon nañ lool ndax bokk na ci liñ ma nettali ne bindal na sëñ Modou Moustapha lu mat fukki kaamil ak juróom loolu nag yaakaar naa ku ko doon xool jamono jii di nga jafe lool nga gis ko ko def sëñ Abdou Lahad itam daan na ko yóbbu belal lu baree bari di ko fa téye lu yàgg sax ndax li ma doon wax léegi rek bokk na ci jataay yooyu mu fa daan def gis naa fu mu bind ne yéen murid yi nangeen xam ne bi ma nekkee ci kër sëñ Abdou ak tey jàng naa fi téeméeri kaamil loolu na yaakaar naa lu jëf ju rëy rëy la joo xam ne loolu dong yaakaar naa mën naa ar Sénégal waaw te it kim fi bàyyi rek day wane ki fi nekkoon mooy kan ndax maam na moom daa nekk sama wax yépp loolu la dama naan saa boo ko tuddee benn baat la mooy ak a baax loolu nag yaakaar naa ka ko meññ am na nu mel waaw maam na moom koo ko gis rek war ngaa xam dara ci Sëñ Aydara Mbàkke lu mu néew néew ndax Sëñ Aydara moom xam-xam bu bari la ko ñëpp xame waaye nag am na beneen côté it boo xam ne ñu bari sax dañ ko tudd ndax wax dëgg yàlla waaw moom daal mënuñoo tudd lépp waaw waaw Sëñ moom daa daa waaw kenn mënu tudd lépp daal li ñu mën a wax daal mooy ku tegoon tànkam la ci siraatal mustaqim ku jaxasoo woon la it ak waa ka Sëñ Tuubaa waaw loolu daal moom mën nañ koo wax ci moom waaw. nga lu ñu tey jii programme màggal gi kañ la ngeen ko tàmbale ak kañ lay jeex nan mooy programme waaw màggal gi danañ koy tàmbalee moom daanaka mooy ni ñu màggale ci yoonu murid yépp rek bu ñu xëyee daal li ñuy def mooy jàng alxuraan ak jàng ay xisaayit ah siyaare tamit ku ñëw siyaare sëñ bi loolu la ñuy yendoo ba digg bëccëg ñu xewlu bu ngoonee it ba guddi gi dina am ñu fiy jàng xasida dina am kuréel yu fiy jàng xasida dina am ay jàngkat yoo xam dañuy jàng njàngum aw waaye daal li ma la waxoon sànq rek ci tansimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdi yaadul minnati li muxlisin maasimi noonu ñu màggale mawlidu nabi daal te Sëriñ Tuubaa wax ko ci jës bu noonu la ñuy màggale fii ci Daarul Muxti kese Aidara gi daal li fi xew moom weesuwul tudd yàlla doxu mbokk bernde waaw loolu daal moom moom mooy li ci ëpp doole waaw waaw waaw sëñ Mbacke lay sant bu baax a baax di la gërëm jàpp naa ne wax su guddee dafa am loo nar waaye su gàttee tamit am na loo ci nar liñ ci nar ci guddi mooy bañ a bàyyi dara waaye liñ ci nar ci gàttal ko mooy bañ nit ñi jéppi la loolu nag am na ci wax ji macha allah ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm guddaloo <laughs> waaye kenn te mat na sëkk nag mat na sëkk eh, ñuy sant bu baax nag man dama am cofeel ci sëñ bi sëñ maam Thierno ndax dafa teg tànkam ci siraatal mustaqim doon koo xamante ni bu dee ci wàllu liggéey ba kenn mënu ko jàpp bu dee joxe addiye kenn mënu ko ci jàpp naa ne moom amu ci rend sax <laughs> waaye bu dee jàpp njàmburam mi tamit kenn gënu ko koo def xam boppam mi tamit kenn gënu ko koo def dundal li fi sëriñ bi bàyyi woon it ma nga ca kon yàlla na ko yàlla guddal aw fanam waaw. loolu li ma ciy dolli tuuti rek mooy damaa mas a jóge fii dama koy nettali lu bari. Hmm. siyaare si Abdourahmane mu ne jox ko loxo mu ne ma kuy sa wasiila hmm. ma ne ko sëñ maam Thierno dara hmm. kaala gi mu yoroon sax kaala gu bula la dafa yëkkati loxoom ne ma xool ma ne ma am nga sëriñ de loolu yaakaar naa doy na misaal sëkk sëñ Afiya bu sa imaam mi hmm. mas nañ waxtaan ba ma tudd ko ko mu ne ma hmm. kooku da daa mel ni daa bokk ci mbàkke mbàkke ba noppi ne safeet ba nee loolu nag ay wax la waaw loolu ay wax la waaw moom <laughs> mu su wax lépp daal lañ bëgg a wax mooy sëñ moom képp kum topp sa ginnaaw. Ah. da nga dëgëral say jéego. waaw jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf sant nañ bu baax a baax di sant mbokk yi seetaan Tanime TV bu baax baax jàpp naa lim jund doy na sëg maanaam ki topp ci sa ginnaaw te te du taxaw yaakaar naa yow mi ko jiitu war ngaa daw <laughs> kon jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal bu baax a baax yàlla na àgg fu mu jëm te àggaaleel ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu ngi koy ñaanal baax yàlla guddal fanam te wéral ko ñu yàgg ko fee fekk di siyaara bu baax mboolem njabootam gi fi nekk góor gi jigéen mboolem taalibe sëñ maam Thierno yëpp ñu nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñëpp ñu ngi leen di siyaare di leen ndokkeel ci turu Tanime TV wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wàllum diine it dina am ay émission yu am solo daw leen gaaw ngeen abonné wu ci chaîne YouTube Tanime TV Tanime TV yéen rekk la fi nekkar ngir ay xibaar yu wér wóor.